li tax mooy monsieur le maire bu njëkkoon bu xare musaana am papam bi naam sax bu ma géwal dama ñëw dugg ci seen domaine waaye géwal a daan jiitu déggu baliya di kañ jàmbaar yi ngir que ñu gën a am jom ndax waaw góor taxul góor doo naat beneen góor nag waaye tax na mu am jom nag boo liggéey ba ko muy dee maman mu ki may dugal c'est lui le meilleur maire du de la ville de Thiès ki may dugal moom laa bàkke woon Diagne Balla Diguène Diagne bi ci loxo Géli Diagne Ousmane Diagne mi ci poste de santé yi Ousmane mi ci école yi Ousmane Diagne mi ci néew gi doole yi Ousmane Diagne mi ci daara yi Ousmane Diagne mi ci ordonnance yi Ousmane Diagne mi bëgg Serigne Massamba Balla ak Maram Aïssa ak Mame Sadio Monsieur le Président de l'Amicale, euh, messieurs les membres du bureau de l'Amicale, messieurs les membres de l'Amicale, de la promotion 98 IN, euh, maa ngi am mbégte bu mag euh, pour teew ci seen cérémonie bu tay bi may jaar ci suma frère suma mag Samba si pour remercier leen si honneur bi ngeen ma defal def ma parrain wu seen activité wu tay bi sàmba fu mu toll daf koy wax fu ma fekk rek daan ni kii mooy sama kilifa mais certes man maay kilifaam ci maire bi mais moom tamit suma mag la parce que suma mag moom lay àndal muy le colonel Abdoulaye Diagne bi muy wax mu nekk un des vôtres la famille des militaires bi ma Samba waxee ni ma yow lañ def parewu suñu activité bi dama ree ma ne waaw man man nekkuma militaire man musuma def formation militaire man musuma dem champ de man musuma téye arme pourquoi ñu porter le choix sur personne mais Samba expliquer ma mu nekk loo xam ni honneur mënu ko gën a ay militaire jël jël ma porter seen choix ci man pour def ma parrain wu activité bi donc je vous en remercie infiniment je voudrais également avant de continuer me saluer mon frère et ami le président Habib Kane pour présence mais surtout pour engagement am ma nuyu aussi la forte délégation bi mu àndal euh, ku lim dañi doo juum mais doo matal ma remarqué ci grand Séga ñoom Ndiobo mon frère Ndiobo Sow ñu ngi ci ah grand su euh, suma gaa yëpp ñu ngi ci grand yi ñëw teew toog ànd ak mon frère le président Habib Kane di ko jàppale ci liggéey bi di nuyu ñoom maam Diarra ñoom madame Diop ñi nga xamante bi ni ñoo ànd ak moo frère aussi Samb si euh, teewaay bi nag d'abord pour remercier et encourager nos frères militaires pour vous dire tout simplement que vous avez la reconnaissance de toute la population de Thiès, la reconnaissance de toute la population du Sénégal. vous avez notre gratitude et notre reconnaissance parce que ku wax militaire ku xam militaire wala nga am mbokk militaire di nga xam li militaire di daj di nga xam lan mooy importance militaire di nga gën a fonk militaire c'est vrai que souvent c'est dans nos pays du tiers-monde ngay gis benn traitement bi sax ñu jëmale ko ci militaires yi mais soo demee dans les grandes démocraties dëkk yi ñuy wax les grandes démocraties par exemple soo demee fu mel ni États-Unis su ñaari politicien taxawee politicien bi nga xam ni dafa mës a dem armée moom mooy ëpp fuuf sens beneen politicien bi pour mun a am un mandat électif pour diir tout simplement ñoom nu ñu fonkee armée ñoom nu ñu fonkee militaire donc major yow mi nga xam ni ñi fi jël kàddu ñëpp remercier nañ leen remercier nañ la pour avoir participé à leur formation ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant parce que ce que vous avez fait n'était pas facile euh, beneen deuxième point wu sama intervention mon frère wax na ko léegi euh, et loolu dafa nekk une forte conviction chez moi li ngeen def nii seen formation militaire moo leen dimbali pour ngeen mën ko réaliser mooy ngeen créer association boo xamante bi nii quels que puissent être les grades des uns et des autres, quels que puissent être les postes de responsabilité qu'occupent les uns et les autres, quels que puissent être les titres des uns et des autres, ngeen créer une association boo xam ni boo ci ñëwee doo xàmmee kii mooy kan kii lan mooy graatam kii lan mooy am amam kii lan mooy man-manam pour di dimbalante ci seen biir loolu dafa nekk loo xamante ni lu am am importance la euh, il y a jours dama demoon Dakar ci enterrement euh, grand frère le mon ami et frère le procureur Abbas Yaya Wane bu nekk Kaolack bi ñu génnee gars yi dajaloo ci buntu cimetière yu Yoff yi ñun ñëpp ñu nekk ay promotionnaire ñii nekk ay colonel des douanes ñii ay magistrat ñii ay inspecteur de trésors ñii ay avocat ku ci nekk rek ci li ñuy wax réussite sociale ci suñu société bi ku ci nekk yàlla may na la ay ndombal tànk mais ma xool leen ma ne leen mais ñun li ñu nekkee jékkul jaaduwul parce que pour ñu gisante il faut que nit génn àdduna ñu daje ci cimetière yi loolu rek mooy tax ñuy gisante te yéen yéen a ngi fexe teg association boo xamante bi nii de manière régulière yéen yéen a ngi gisante ci seen biir donc loolu li ngeen ñu ëppalee ñun civil yi mooy cette formation militaire boobu nga xamante bi nii am nga ko am ngeen ko nga xamante bi dafa ànd ak discipline ànd ak organisation ma leen di ñaan di leen ñaanal loolu bu leen ci dara jëlee man dama gëm ni àdduna bu nit ñi di wut alal souvent dañ ñaan demal nga wut nit ñi sànq dégg naa fii ay nit yu ñu singularisé di leen remercier di leen gërëm ci seen taxawaay ci association bi di leen gërëm ci seen participation financière ci association bi ma leen di wax ni leen loolu bu leen ci dara jëlee parce que dans toute organisation humaine suñu borom moom mooy séddale te suñu borom buy séddale du ñëpp lay jox day jox ki tuuti jox ki lu bari mu am ñoo xamante bi nii mën na leen bañ a jox dara donc ñi nga xam ni yàlla ñoom la gën a ñoom la jox ñu xaw a ëpp doole ñeneen ñi suñ dul bàyyi xel ñi gën a néew doole rek ay jafe-jafe dafay am su ma waajur daf ma daan wax bi muy dund souvent su ma ñëwee kër gi nit ñi ñëw des fois ay nit yoo xam ne dañu am ay soxla ñëw indi ordonnance wala facture di ko indi des fois ñi dëkk ci kër gi mën nañuy dem ba yërëm la di xaw a xuntu mais sam papa da lay wax ni la bu ma la mës a dégg ngay xuntu parce que ñi nga àndaloon bi ngeen nekk xale muy maanaam yéen ñi ngeen àndaloon ngeen nekk ay classe quatre-vingt-dix-huit mu ni ñaata woon ngeen ma ni ko nangam mu ni ñaata la ci yàlla jël defal leen wërsëg comme wërsëg bi mu la defal bu neexoon yàlla mu jël la def la boole la ci ñi nga xamante ni nii suñ amee soxla dañuy dem ci ñeneen ñi laaj leen bu la yàlla jëlee nag boole la ci ñi nga xamante ni nii bu nit ñi amee soxla dañuy ñëw ci yow pour nga régler ko kooku da nga ko war a sante yàlla parce que tegul ni da ngaa gën ñeneen ñi juddu wala da ngaa ëpp ñeneen ñi wërsëg mais suñu borom moom moo ko defee noonu donc ñi ñu fii lim di wax ni ñu ngi jàpp ci association bi ñu ngi dimbali yeneen membre association bi dañu la ñuy encouragé di leen félicité di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a yokk seen wërsëg. ba ñu mën di gën a dimbali ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen tane ñi bokk ci association bi aussi te xëy na seen doole demewul noonu ñu leen di ñaanal ñoom it yàlla may leen wërsëg dimbali leen sàmm leen sàmm seen njaboot ba xëy na jafe-jafe bu ñu am ëllëg seen njaboot moom bu ñëwee mën leen a saafaraal jafe-jafe yooyu ñuy incliné wu pieusement pour terminer devant la mémoire de tous les disparus de l' euh, de l' association. notamment notre frère policier bi nga xamante bi nii moom la wax nii génn na àdduna tey eh, ñi fi feebar ñu leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla may wér ñi jóge fu sori ñu ñaanal leen yàlla delloo leen ak jàmm fi ñu jóge le président Habib Kane comme moom il toujours de l'inspiration moom foo ko fekk mu ngi créer li mu fi wax nii léegi du ay engagement yoo xam ni ay engagement wu politicien la engagement bu mu jël daf koy respecté engagement bu mu jël daf koy respecté man parfois dama koy gis mu nekk ci ay ay mbir man ko mais Habib li ngay def nii ban intére nga ci am mënuma dimbali askan wi rek donc moom aussi dañ koy ñaanal di ko wax ni projet yi mu am incha allahu rabi du ci wét au niveau de la commune de Thiès dinañu ko accompagner incha allahu rabi accompagner euh, la promotion 98 une ci toute initiative sociale boo xamante bi nii incha allah rabi jël ngeen ko encore une fois ñu ngi leen di gërëm bu baax ci privilège bi ngeen ñu may ñu ñëw taxaw ak des hommes de cette qualité la pour di mën a waxtaan ak ñoom di leen gërëm bu baax di leen sant di sant aussi seen soxna yi parce que nekk soxna militaire moom nekkul loo xamante ni lu yomb la ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf.